asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 28 octobre 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag moo xam sunu làmb la yëglekaay bi nga xam ne moo di record l'observateur ba ci la tribune ku ci nekk daal tey xëy nga ñëw fi nga xëy ñëw nag moo ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mu mel ni ki boobu combat fi mu nekk ni moom boo bëggee dégg-dégg day ci yoonu taxaw ca la ne wala boog sax man nañ ne est ce que taxawul wala la ko teree taxaw bariwul moo tax nag daal yëglekaay bi sunu làmb moom jàpp na ne combat bi de nekk moom feere def nañ ko ko waaye nag problème bi daal mooy Ama moom mu ngay laaj xaalis bu takkoo takku cent millions daal moom fi nekk nii moom lay laaj moom moom jamono jooju moom mu nga naan bu fekkente ne lu muy mënti laaj daal loo ci mën a dégg def nañ ko fi mu nekk nii yëpp xëy nañ tey ñëw ci record itam ñëw na ci fi mu nekk nii daal nee na combat bi ne fi nekk nii daa mel ni kon daal question de daal moo ci des fi mu nekk nii maanaam heure waaye li leer daal combat ba moom ci taxaw ca la jëm ndax léegi ni ko laay daal dalal na ñi nga xam ne ñii day ñoo di kaawu ñi nga xam ne ñoo di modloo ñu waxtaan ñoom ne nañu ok waa kër Ama itam ne nañu fi mu nekk nii pare nañu loolu mu nga fa xam ne nii day moom moo di ca record waaye l'observateur tamit ñëw na ci combat bi moom tamit wax na ca de nee na fi mu nekk nii day bal bi nag ci kaw promoteur bi fi nekk nii ci la des ndax nag mbër ya moom pare nañu ngir fas yéene jàkkaarloo defante ba mu mat sëkk moo tax it yëglikaay bi di laa tribune nee nañu combat ba li leer ba leer fi mu nekk nii day parce que ah validé moom yegg na ca yow combat ba daal fi mu nekk nii ak taxaw la gën a tee jege waaye ñeneen ñoo xam ne nii moom ab wala discipline wala ay sart lañ bëgg a indi ngir seen am écrit taxaw tegu ci aw yoon wala mel na mu melaatoon mooy waa Fass mu mel ni ki fi mu nekk nii nag loolu la ñuy préparé ñoom waa egri Fass ngir teg ay règle yoo xam ne daal day ànd ak ay sart yoo xam ne daal ci am yar lay war a tegu ak respecté entraînement ya ca nañ koy tege ba nga xam ne kenn du ko jàll wala mu koy bët ngir ñu mën a amaat ay performance dem ca kaw ku ko deful nag aw yat moom wala yar wi fas naa yi ne dal ci sa kaw mu mel ni ki nag yëglikaay bi na est ce que sax ñoom loolu bu amee ndax départ Papa Sow ca xaj sunu làmb xëy ba tey di ñu wax lool ci écrit bi nga xam ne moom moo di écrit face waaye leneen loo xam ne nii day boo bëggee dégg-dégg gis nañ ko ci yëgle kaay bi mooy écrit bi nga xam ne moo di Kër Massar mbooloo Kër Massar daal boo bëggee dégg-dégg moom ah écrit ba day mu nga ca dox wala boog seen i ba bari ne lool suñu làmb nee na 37 combat am nañ ko 19 victoire ak 19 défaite ñoom laal loolu moo di seen ab liggéey am na fa ñoo xam ne nag moom ñu ngay dox di wane seen bopp di ay xale di assurer mbir jàmm waaye am na ci ñoo xam ne moom boo bëggee dégg-dëgg doxle gañ war a doxle moom dese nañ koo doxle yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni kii noonu waaye ba tey dañuy dem fa nga xam ne tamit mooy ca Leewtoo TV foofu moom lañ fay fekk mooy Lac de Guiers numéro 2 ma nga xam ne dañ ko doon may soxna wala boog mu doon takk soxna démb fa nga xam ne nii lay moom moo di ca géeja way ba tey vidéo ba mu nga foofa kii moom ab laaj la xëytee moom moo di ki nga xam ne moo di Gambie ay adversaire daal lay laaj wala ñu mu jàpp ne lamb da koo boole ak ñoom mu ñu ne ko kan ak la Gambie ne ko kenn ku dul ki nga xam ne moo di coince bu lamsaar ak jéen kayra ba nga xam ne moo nekk ca sumba jun mu mel ni ki daal moom fi mu nekk nii ñooña moom la jël ay bëtam teg leen ko fa yéenee nag jàmmaarloo ak ñoom yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye loo ci mën a dégg itam weekend bi moom safoon na sàpp ci lamb ji nga xam ne moo di lamb simple Adrien Senghor na fa ka ko jël moo di Blindé la nga xam ne moom lañ fa tegoon di fa nga xam ne mooy ci fa tegoon tegoon fa miisu deux millions ka ko gagné tamit nga moom moo di général Malika ca final ba waaye yëgle kaa bi na kii di ak ba moo ngam moom yëngal nañ fa ba mu yëngut fa nga xam ne moo doon ca arène nga xam ne moo di arène nationale mu ngi ca Leewtoo point muy wàllum daal ki nga xam ne moo war a remplacer kii xam ne nii day moom moo di ah ka nga xam ne moo di Abdou Badji nekkoon fa nga xam ne mooy ca CNC yoroon mbirum wàllum wàllum technique ma daal fi mu nekk nii moom ka koy remplacer moom la ñuy seet kan la war a doon ci diggante xalifa ak kan nga xam ne nii moom la ko war a seqal waaye leneen loo xam ne nii moom autis la muy ki nga xam ne moom la ñuy wax doyen Adama Jali Ngom nekk fa nga xam ne nii wala dëkk ca Kaolack nee nañ nag moo fa koo génn àddina moom nag nekkoon na ko boo xam ne daal daan na défendre li nga xam ne day moo di culture séréer cosaan na ak na ko mel nekkoon fa nga xam ne tamit moo doon ca RTS ba nekk ca kaw la nañ nag génn àddina kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana te xam ne rek la yàlla ku juddu da nga dee lu tooy da nga wow kon nag loolu ku ko xalaat looy def wala nga koy wax war nga koy xam te ñu yéenante jàmm bañ di yàqalante bañ di boolente te ku ci nekk rek li na ci yow nga yéene ko sa morom li nga yëg di ko yëg ci sa bopp jàppal ne sa morom moom la war a yëg jàmm ji nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa borom yaakaar naa te ñu jéem a liggéey liggéey gën a wóor ku liggéeyul da nga triser mbaa nga def lu ñu la def lawul nga wax ko te loolu dara jaru ko mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant ba wax yi ngeen àndoon si euh, revue de bi ñu ànd yéen si jàngat bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay lay Koumba di la delloo nuyu di la ziar di nuyu internetu TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saxu ci ñoom Amine Babacar ni ñëwoon nag si journaux yi nga xam ne ñoom na wax làmb suñu làmb euh, record euh, ak euh, lii nga xam ne mooy lit Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu commencé ak sunu làmb sunu làmb nag dafa mel ni combat ba ñu doon laam-laamee fan yii yëpp nee ñu presque mi ngi si poche ki nga xam ne mooy ko laa parce que nee na am na ki nga xam ne mooy Modou Lo léegi nag Ama moo des mais Ama nee na téeméer million lay laaj. waaw fi mu nekk nii combat bi olof a ko wax lu dafa waxul lu ay di njàmbat rek moo fi xew fi mu nekk nii ñëpp moom la waxtaane mën nga ne sax bu la neexee tey ci amateuru lamb yi da nga naan combat Modou Lo Ama Baldé demande sociale la maanaam ñëpp ko bëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na taxaw comme niñ ko xamee nag Luc Nicolaï mi nga xam ne c'est le promoteur du continent moo ci nekk ba nañ fi nekk nii parce que dugal na ko si poosam wala boog bu dee ci waaru énergie la jubóo ak ñoom loolu nag yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la ndax Modou Lo mbër la muy bëri bëgg bëri na ci làmb ji nekk roi des arènes defe naa itam te ci bëri ci lay amee li muy am kon defe naa bu ñu ko proposé adversaire fay ko lu ko jaral mu nangu loolu defe naa ne lu war a mën a nekk la ama itam bëgg naa bëreek Modou waaye itam mu ngay laaj kase boo xam ne nii mooy téeméer ah, tamit yaakaar naa te ñoom it nañ pare nañ ki ngir bëri kon defe naa fi mu nekk nii daal bi kon moo ci des li ñuy wax nag mooy que ni rek mooy muy kawu ama kawu Modou ak léegi rek yàlla na yàlla def ñoom ñëpp jébboo ci jégu am parce que itam làmb la joo xam ne ni daal sénégalais fi mu nekk nii ñu ngi koy laajte bu baax a a baax a baax léegi loolu moom bokk na ci ay mbiram yàgg na di maanaam loo xam ne nii tey nit ñu koy soxla mu ñëw wane ci boppam bu baax a baax a baax ngees toujours si combat bi ñu dem si record record mi ngi xamal ni combat bi daal lu tax ay si ay waxtu daal moo des fu mu taxaw maanaam presque taxaw na. waaw presque kañ moom kay ay waxtu tee mu taxaw kon nag waxtu yooyu ko teree taxaw <laughs> xay na kon ñu patienté tuuti rek parce que nag olof a ko wax ku njëkk yow borom ndékki faw nga tëddaat. kon nañu patienté tuuti rek ñaan yàlla heure yooyu fekk ñu fi ba combat taxaw. réunion bi nga xam ni ñu ko doon laama laamee fan yëpp waa suñu laam nee nañ daal waa Fass dañuy préparé seen ndëpp comme ni ko tàmm defee avant chaque ouverture de saison nee daal dina am ay règlement yu bees ay discipline ak yooyu noonu nee nañ nag Papa am le cas de Papa moo gën a tax sax nu gën a woote réunion boobu noonu. waaw loolu su mën dégg daal ñun li laay waxaat rek ànd bu mu mënta doon daal Fass ak euh, euh, Parcelles Assainies rek. Géejawaay ak Pikine nag Leewtoo feneen a ci yem fu mu mën a doon li am solo tey may nit ñi jàmm mooy ñu ànd ci dëgg rek di ànd di waxante dëgg te di ko defante te ku ci nekk rek la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom na ngay jàppe sa bopp nga jàpp jàppe ko sa morom loolu defe naa ñoom suñ ko defee ci seen écrit mbir mu dina avancé ku ci yéene sa morom jàmm et puis tam la ñu teg si ay régal ñu xool ko la ca baax ñu jëfe ko parce que des fois ñu teg ay régal yoo xam ne ni dana yàqu-yàqu mais dañuy xool la nga xam ne ni mooy lu normal li parce que ña fa ne ay nit lañ yoo xam ne ni ay responsable lañ suñu waxtaanee ba tënk ay régal defe naa est bu keroogee sax dina jar génn nit wala bàyyi nit dañ naan kay régal yi la kon ñu tegu ca muy régal yoo doon ku bokk a bañ te loolu defe naa valable na pour mu mënta a doon daal li koy doxal mooy teg ko ci aw yoon mais itam li koy doxal mooy ànd te yàlla tax yéen jàmm suñu jógee nag sunu laam dañu dem si Leewtoo point net Leewtoo point net mi nga xamal ni que euh, DTN bi nga xam dafa déposé woon démission muy Abdou Badji soo moytuwul Khalifa daal dina ko wuti parce que diplôme bi ñuy laaj maanaam diplôme entraîneur de lutte moom la Khalifa yor keneen ki nga xam ne neewoon nañu tamit mun na am mu nekk mu remplacer ko muy euh, Sitor Nour benn chance pour nga xam ne mu mu remplacer Abdou Badji parce que amul diplôme lutte maanaam diplôme euh, athlète diplôme athlétisme la am ak diplôme football Babacar. waaw loolu day mbir mu mën doon rek la nga xam ne ni moom la ñuy gunne diw mi day dem ñu ngi koy remplacer ñu ñaar ñaar ña nag kenn ci avantage yi ci côté diplôme ak côté kayit ak côté xam su ko roogee kooku daaxaar naa mooy ëpp avantage mu mën a doon bu la ko parparloo jaxa joxe bu la ko def lu la neex tafa joxe mais boo koy joxe jox ko ko ko mën te maîtriser ko te mu jaral ko soo ko joxee rek yaakaar naa di nga ci am bu baax a baax a baax kon ñaan rek moo xam Xalifa la wala moom Babacar la ñun ñëpp wala Sitor waaw wala Babacar wala wala wala wala Khalifa ñoom ku mu si a doon rek ku ñëw daal yàlla na nekk njëriñu làmb daal. Euh, Babacar ñu jógee nag foofu dem nag si Leewtoo TV dem si lutte simple bi amoon foofu si arène nationale ñu ngi xamal ni que ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye moo jël ndam li si kaw ki nga xam ne mooy général Malika. waaw loolu moo xam ne mooy ca Adrien Senghor wala boog ca fa nga xam ne mooy arène nationale jàkk sa fa tegoon deux millions xam ne vraiment neex na trop ci côté animation ndax mbay mu nga fa woon ak moom ngoom Serigne Ndiaye ñu koy wax Coriace gagné général Malika ci final ba gisoon nañ fa njaga doole ñoom Sele Mele mu nekkoon nga xam ne mbir yu nag ñooy itam te kon neexoon na loolu daal moom am na démb arène nationale. Euh, Leewtoo point net dañuy xamal fee si arène nationale ki nga xam ne mooy Blindé moo jël ndam li si kaw nga xam ne mooy hôtel Dior numéro 2. waaw loolu tamit ñuy félicité hôtel Dior di ñu tëggoon foofu muy ñoom Ngor Sëng Diouf wala ñuy félicité ki nga xam ne mooy Blindé bokk moom mi gagné euh, hôtel Dior wala lay wane daal lamb simple bi dèjà ñun xaaruñ ñun am nañ kii rek faveur rek mu nga ca waaw di ko félicité moom mi gagné mise ba daal. si Leewtoo TV aussi ni nga xamal ni que ki nga xam ne mooy Lac jël na soxna dimanche bi euh, Leewtoo TV euh, ni ngi fa woon waaw loolu du mën a ñàkk ndax Leewtoo TV lamb 100 pour cent lay def kon yaakaar naa booy def lamb 100 pour cent nag mbir mu toll ni Lac de Guiers di VIP nekk ci lamb ji di takk soxna defe naa c'est très nga dem fa jox ko say internet ndax ñun loolu rek lañ xaare defuñu volleyball defuñu football defuñu handball defuñu nu ñu koy waxee te ñun bit si la xaw ma affaire bi ñu tuddati ñun làmb 100 pour cent la ñuy def kon nag di ko féliciter ci soxnaam soosu di ko ñaan yàlla yàlla na ko sëy bi jig ah di wax nag rek waaw nit ñi daan nañ wax kañ na koy def kañ na koy def xëy na loo gis dafa am heure kon ñu ciy profité di ko ñaan moom sëy bu am ndam mais di wax célibataire yi tamit ñu fagaru rek jóg ci seen bopp classe ak maar gi ak faal ci côté bi ak yow mi toog ak si si ginnaaw loolu nag euh, tiis dalate na si si famille yu làmb ki nga xam ne mooy Adama Dialy Ngom génn na àdduna mu euh, euh, ñu koy jaale mbokk mi di ko jaale waa Kaolack di ñaan yàlla yërëm ko te xaree ko aljana moom naa ne comme ni ñu ko waxee rek ci journal bi nekkoon na ko xam ne homme de culture la daan yëngu ci culture séeréer a ngi noonu rek comme ni ñu ko waxee sànq ku fi nekk yàlla la fi bàyyi ëllëg nañ fi jógut yàlla ñu fiy jële yàlla nañ yàlla na bu baax te itam mu ànd ak yërmandeem barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amin Babacar si kàddu tàggoo di jox di daje suba incha allah mais tey nag moom revue bi du ma ko may kenn ku du sama yaay mi fêté anniversaire am tey naan ko merci dundal dundal ba sa bay di baawaan euh, xam nga ni benn doom yow mu day mel ni benn bañ si biir gémmiñ fonk nga ma bëgg nga ma bëgg nga sama doom bi nga xam ne mooy Mohamed dundal ba nga fekkee lépp nu bañ a séddale dara si sa ginnaaw maire sa eh, Ibrahima. waa waaw ndeysaan ñu koy ñaanal jàmm gudd fan ak wér-gu-yaram ndax moom suñu yaay la mu tamit maire Sow yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér-gu-yaram àddina nag bëri la bi barkeel bi da koy gën benn doom wala ñaar wala fukk du mbir mi xam nga mbir mi lan la ndey kumba barke barke nag li koy indi mooy. maanaam boo ca tolloo di wut barke nga nangoo def la barke di may ku ko def rek bis boo demee mag rek yàlla wan la ne maa ngi nii kon yàlla yàlla guddal fan wi wéral cër yi meer sow di ko ñaanal bu baax a baax a baax mi di nuyu koo xam ne tamit dafa bokk ci fans club Babacar di fête tey anniversaire am ñu ngi koy wax Abdou Jigé Diop bokk ci ñi nga xam ne nii ay soppe Babacar lañu ubbi groupe di fa bëgge Babacar di fa bëgge Leewtoo TV kon jigéen maa ngi lay ñaanal tamit anniversaire bi yàlla na la jig nga yàgg koo feete ay at at yu bëree bëri di nuyu fans club Babacar bi yëpp ñoom Grand Laye Pape Ndiaye Mass Ndiaye Instant Seydi ñoom jigéen Cédric Marcelin Ndour Baye Zal duñu fàtte kenn David Luiz Espagne képp ku nekk ci biir rek Babacar nag lay bëgg ji la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di wax ne que daal Sénégal gii ñu ne yàlla na fi jàmm yàgg sax ki comme ni ko guy gi mbër di waxee yàlla na ñëpp am jàmm gën a bon sax yàlla na yàlla détourné sam sam xol ak sam xel ba ngay def lu baax ndax mbaax ci la njariñ nekk ba suba incha allah